daa ko wax di yàgg naa leen ko am taw fexe may xaas la am ñoom ñu ngi nekk nekk ci li gën a xas dégg ci xas yi xaas la ñu am xaas la am bu wér wér xam ne tawee ba ñëpp war nañ cee ñee te ngeen dund ci fàggu yàlla rek dañ ko xaas xaas am waxuma taw feex taw ku bëgg sëñ Tuubaa am na waaye yéen xaas ngeen am. xaw dal xali jiitalug aji kawe ji. womatug aji kawe ji di max naa jiitala rek aji kawe ji xollan ci kaw nga jiital ko liman ñeel koo xamee ne biha nekk na ca infarat wéet te mooy nekk kenn rek mu ne abaw lool borom xam-xam yi nax yu yoon yi bañ nañ ko waaye wala am naa woo terewut ko mukk mu ngi ci junj ibnu malik ndax moom terewut ko mu ne fa xar war lool rot na de ci ñoom ndax iskaw nu saydin nekkuk saydu mufradan nekk lu ñu mufratal an faxa moo gën a min xamrin ci xamru fuuf mu ci max naa mustajaasu lu ñu dagana la ñoom borom xam-xam yi lan yéexi nekk loo xam ne lu ñuy dox dal la maanaam wax ju wér la. fii dafa bëgg a joxe ba tey benn misaal moo xamee ne nax yoon yi dañ ci wute ak ibnu malik mi nga xam ne mooy borom alfiya mooy lu mel ni nga jiital xaal nga jiital xaal ibnu malik daf caa wuteeg ñoom ibnu malik dane dagan na ñi jiital ko ndax rot na ci luxa arab yi ña daan woy dan nañ ko def lu mel ni mu indi ci kenn ci misaal la in kaana bardil ma'i haymaana saadiyan ilayya habiban innaha la habibu ndax haymaan rek kooku xaal la saadiyan nekk xaaluk kon loolu tegtaloo ne ibnu malik nee kon danañ jiital xaal mu ne ama in kaana saahibul xaal marfuhan su fekkee nag xaal bi dafa nekk marfon wala mu nekk luñ man suubal mu ne dagan na fa jaasa taqdim min dooni xilaafin mu ne loolu moo amul wuute dagan na ci boppam ñi jiital ko waaye daal li am ci dëgg-dëgg xaal dagan na ñi jiital ko waaye nag ci condition mu nekk faayil maanaam xaal bi ci boppam mu nekk faayil dagan na ñi jiital ko kon anal xaal yajuusu taqaddumiha ala saahiba mais isa kaana ci condition su nekkee fa'ilan di fa'il nga joxe ci misaal mu simple te neex xam jaa ani masalan jaa ani raakiban saydu jaa ani dikkal na ma saydu saydu nga ne raakiban mbir mu muy aji war loolu la ñuy xaal mbir mu muy aji war saydu dikkal na ma waaye bi may dikkal mbir mu muy aji war kon raakiban ji boo xoolee fa'il la kon dana jaaru ñi jiital ko. kon dana jaad dana jaadu moom moom nga xam ne faa'il la di rakiban nekk xaal kooku dana jaadu ñu jiital ko dontu naxu yoon yi dañ koo bañ kon wa yajuuzu taqaddumi ala saahiba isa kaana maf'ulun bii dégg nga ba tey dana dagan ñi jiital ko moom xaal su fekkee maf'ulun bii la lu mel ni misaal mu gàttat ba tey muy darabtu qaa'iman saydan dégg nga loolu moom wala yajuuzu an tataqaddama ala saahiba isa kaana majruur bi harfi jar inda naxwiina naxu yi nii moom loolu dañ koo dàq waaye ibnu malik moom daganal na ko waaye fa naxu yoon na li an xarfal jar laa yaxmalu ma baxdoo fii ma qabluhu naxu yu ne dañuy wax ne xarfu jar kenn du ko jëfandikoo lu nekk ci gannaawam mbaa lu ko jiitu waaye ibnu malik moom yaqulu qad warada saalika nee na loolu mën naa nekk mooy nga jiital xaal su fekkee ci condition faayil la xaal ja ngay jiital ci boppam ci condition su fekkee dégg nga faa'il la manis na ko jiital kon borom xam-xam bu mag bi itam bokk na ci ñu ko ijaasaal muy ajaasaal muy daganal ko si baway yi si baway yi daganal na ko fiihaa rajulun qaa'iman ngir xadis boo xamee ne dañu wax ne yonent sallallahu alayhi benn bis dafa julli ba noppi jékki su ko defee nag am ñu ñëw ci gannaawam ay góor yoo xam ne dañoo taxaw di julli xadis ba mi ngi tàmbalee sala sala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qaahidan gis nga kooku moo jiitu kon dagan nañu jiital ko wa sala waraahu mu dal di julli ci gannaaw moom rasulullahi rijaalan qiyaaman ay góor ñoo xamee dañoo taxaw te moom mi ngi jékki mbir mu muy aji jékki kon wa sabaqa xaal maa bi xarfi jar xat abaw dégg nga mooy jiital xaar jiital lu ñuy tuddee xaal maa bi xarfi jar xat abaw am na ñu ko bañ de waaye sëriñ bi li muy junj fii wala am naa woo warat ibnu malik moom bañit ko ibnu malik nee na mën naa nekk te ibnu malik moom it biñ ko ko laajee dane loolu arab yi ci boppam mooy tegtalwaayam arab yi mooy tegtalwaayam kon wa sabaqa mafulun bihi muqaddam ala hamilihi wa abaw al aati wa sabaqa mudaaf waaw haal mudaafun min idaafatil masdar li faa'ilihi ma ismu mawsul mafulun bihi lil masdari bi harfi jaar wa majruur mutaaliqun bi qawlihi jura al aati jura dégg nga fi'lu maadin mabniyun lil majhuul wa naa'ibu faa'il damiiru mustatir fiihi jawaasan taqdiiruhu huwa ya'uudu ilaa ma al mawsuula wal jumlatu min jura wa naa'ibu faa'iluhu laa mahalla laha silatul mawsuuf silatul mawsuul su ko defee nag gi nekk xarfu xarfu abaw fi'lu wa faa'ilu wala al waawu laa naafiyatu am naa woo dégg nga mooy am nax rek mooy fi'lu mudaari'un la wa faa'ilu damirun mustatir la fiihi wujuban taqdiru ana wal haa u nekk mafulun bii gi faqat alfaaw gi kooku li taxlil la waqat xarfu tanqiq warada nag fi'lu maadin la wa faa'ilu damirun mustatir fiihi jawaasan taqdiru huwa yaudu ila sabaq xaal wa taqdirul bayt dégg nga waaye nag du tere waxat abaa nuxaatu nuxaat yi mooy naxu yoon yi bañ nañ loolu an yusbiqal xaal mooy xaal ci boppam di jiitu saahibuhu boromam alati jarra bil xarfi wala am noo salika li an annahu waaridun fi kalaamil arab ci waxi arab yi ma ibnu malik ne root na ci mooy ñiy jiital xaal lu mel ne raakiban saydu jaa ani raakiban saydu xam nga xaal gi lañ jiital ci saydu dégg nga te raakiban ni mu nekkee xaal la noonu la nekkee faayil loolu ibnu malik nee na dara nekkul ci donte naxu yoon yi ñoom loolu moom na luñ ko waaye ibnu malik nen loolu ci waxi arab loolu dara nekkul ci kon misaal mii lay malik di joxe muy xàtteeb jiital xaal ala xaamiluha isa kaana ismu tafdil bayna xaalayni bi kon bil misaali axyaanan li tastanbitu minhu lqaaxida qawluhu mufradan xaalul xaamili mufrad boobu mu tudd xaaluk aji jëfandikoo ji la fiiha kalimatun anfa'u baat la boo xam ne moo gën a jëriñe isaan hiya xaalatul muqaddama alal xaamili xaala goo xam ne dañ ko jiital ci kaw aji jëf ji te wala xaamilu ismu tafdil la fa huwa laysa fi'la dégg nga ismu tafdil la mais nekkut fi'l boo xam ne mutasarifan la wala sifatun asbaat al fi'lu al mutasarif wa taqaddama ana ana ibnu malik yaqulu wal xaalu in yansaba bi fi'li sarfan aw sifatin asbaxat al musarifa fa jaisun taqdimuhu fastarata li jawaasi taqdimuhu ala amili an yakuna al amilu filan mutasarifan aw sifatun tasbiahu isan fa haasha ama qawluhu anfaxu min amrin muhanan fa laysa fiha sahidun ndax li ann muhanan amiluha anfaxu wa hiya mutaaqiratu alayhi fa sahidu qawluhu mufradan anfaxu min amrin dégg waasal misaalu isaa ta amal naahu anna fiihi mufaddalan wa mufaddalan alayhi bi ixtibaari fal mufaddalu huwa saydun wal mufaddalu alayhi huwa amrun fa saydu fi haali ifraadi afdalu min amrin fi haali kawnihi muanan xaasa huwa al maxna dégg kon lim bëgg a joxe fii rek mu ne mustajaasun lam ci nam ay ajaasul ulamaaw borom xam-xam yi kon dagga nañ nga jiital xaal nga jiital xaal loolu borom xam-xam yi kon ñoom dagal nañ la ko mustajaasun mooy ay xat ajaasul ulamaaw lan yéexi nag yaani laysa fiihi duxfun bal huwa kalaamun fasihun wa sayihun bul defe ne lu ko borom xam-xam yi nax yu yëpp dàq bul defe ne day tax mu dàqu de déedéet am na ñu ko daganal de waaw laysa fiihi duxfun moom la jubli ci lan yéexi nii mooy duñ ko doxal dal mukk mooy wax la jox na ju wér la daal ne jiital xal mën naa nekk. waaye nag waqaale ba'du naxwiyiina terewut leen ci naxwiyuun yi nee nañ xaasaa lii kat muy jiital xaal mamnuhun dañ koo tere wa laysa mustajaasan nekkul lu ñu daganal de ndax wa inna mufrat fii saydi mufrat xabar la kaana al maxsuufata wa taqdirul kalaami inda haasal qaa'ilu saydu saydu isaa kaana mufridan isaa kaana mufradan anfaxu min amrin isaa kaana maanan wa haasal qawlu laysa lahu xasun min anasri li kasrati taqdiraati fiihi faqad xaswa minhu sittatu asiyaa'i dégg nga haasa raxyi wa hiya isaa wa kaana wa ismuha wa misluha min satri sani amrin isa kaana muanan wa ali qawlu ibnu malik la naxtaaju ila taqdir kon la ibnu malik wax daal loolu daal ci dëgg-dëgg moom lañ mën a jàpp te loolu la suñ tubaa wax ne loolu nee na rot na te rot na googu suñ tubaa wax na te danañ jiital xaal loolu suñ tubaa wax ne danañ jiital xaal loolu ci ibnu malik la ko jëlee waaye ñenn ci naxu yoon yu bari dañ ne xaal kenn du ko jiital ndax boo xooloon lu mel ni saydu mubtada saydu mubtada mufrad nekk xaal mufrad dan googu mu tudd kooku la min damiril mustatir fi anfa al ati anfa xabar xabaru al mubtada allati huwa saydun min amrin jaar wa majrur mutaaliqun bi anfaxa muhaanan xaal muhaanan ba tey xaal la min amrin muhaanan googu mu tudd ba tey xaal la gu tukkee ci amrin wa jumlatul mubtada wal xabara fi maxali jaar bi idaafati naxwu ilayha mustajaasun xabarul mubtada allati huwa naxu fi awlil bayti lan naafiyatun naasibatu yaxuni bi max naa ya doxof moo tax sëriñ bi ne xawdal ali jiitalug aji kawe jiital aji kawe lan ci kaw liman ci koo xamee de biha nekk nañ ci moom infarat nekk kenn dong koo xamee ne kenn dong la tabaarakallahu nga jiital ko mu ne abaw ñenn ci borom xam-xam yi nax nee nañu dañ koo bañ koo xam ne mufrat la ñi di ko jiital ñenn ci borom xam-xam yi naxu nee na bañ nañ ko mais Ibnu Malik bañut ko moo tax mu ne wala am naa ko waaye nag terewul ko de ndax Ibnu Malik nee na loolu jawaas la de lu dagan la faxar waral rot na te mi ngi junj rek Ibnu Malik moo ko wax moo tax mu ne rot na bu doon ab xadis nga ne rot na wér na iskaw nu saydin ndax nekkuk saydu mufradan nekkul lu ñu mufratal an faxo moo gën a jëriñe fuuf min xamrin ci amru muxaanan ci maxnaa muxaanan goog ba tey xaal la bu tukkee ci amru mustajaasun lu ñu daganal la ñoom borom xam-xam yépp tabaarakallahu daganal nañ ko de lan yéexi ni nekk loo xam ne lu ñu dox dal la. kon sëñ bi ni mu waxee fii da koo balaloo ci ibnu Malik di wane ne lu mën a nekk la jiital xaal lu mën a nekk la. ala kulli kon yàlla yàlla fayal sëriñ bi léegi dafay continuer mel ni kuy tagg alquran taggin woo xam ne da koy jublu rek tëjee ko xasida gi nga xam ne moom lañ nekk kitaabuhoo téeréem bi asbata saxalal na lanaa ñeel nu alfalaaxa texe wa innahoo naka moom ca dëgg-dëgg a nasru wisar la asahihu ba di aji wér musbita tey aji sax faw mu ne téeréb yàlla bii di alquran texe gi nekk ci ñun moo ko def ci ñun te téere la boo xam defuñ ko ci woy wëy alquran lépp rek man ngeen ne da dangay wax ne wisar la boo xam ne dafa wér waaye du nekk loo xam ne ab wëy la ci wëy la ñëwee comme ni ñuy wëyee xasida yi loolu nekk ne alquran ci la wàcc déedéet alquran wisar la boo xam ne wisar bu wér te itam daf fiy sax feeg nit ñaa ngi fi rek xam-xam nekk fi jaamu yàlla nekk fi rek alquran a ngi fi moo tax mu ne kitaabu téereem bi moom yàlla bata saxalal na lanaa ci ñun alfalaa texe téere bi daal moo tax ñu texe wa innahu naka moom téere bi an nasru wisaar la asayihu ba di aji wér musbitaa tey aji sax. in lam ba ndem bëggoo sigiroxoo alquraanu albasira yàlla muy aji gis lépp. fa ay na man xalimtuhoo ana kan moom nga xam ne nasira aji dimbali la. mu ne ah, su fekkee yow mii di ma déglu bëggoo alquraanu yàlla muy aji gis lépp amut lu ko mën rëcc di ko raw. mu ne waaye foo xam ne foofa demee nit mën na la faa dimbale. kon ki la mën a dimbale mooy yàlla bi moom alquran te boo toppee alquran di ko jàng jële ci ak texe yàlla dimbali la moo tax ma ne in lam tuy ba su fekkee bëggoo sikaroo téereb yàlla mi nga xam ne albasira mooy aji gis lépp su fekkee bëggoo ko fa ay na man alimtuhu waay waay waay ana kan mooy ki nga xamee ne xam nga ko na nasira muy aji dimbale da bëgg wax na rek yàlla rek mooy dimbale kon nag saxal ci alquran yàlla dimbale la kitaabu muxnin téereb aji doylu ji sans saxa dàq na alxumala lépp luy géem mustawjibun mustawjibun aji waral la nag sana iya samaw tagg aljamila wu di aji rafet mu ne téereb yàlla muy aji doylu ji lu ñuy tuddee géem mooy nit koo xam ne mbiram yëpp dafa nëbbu maanaam daal siwut léppam dafa géem bu doon safara nga ne fay na nit ku fay te loolu kenn bëggul ko fay mooy nit koo xam ne kenn xamut ko moo tax nag mu ne téereb suñu borom muy aji doylu ji moo di dàq ci man sëril ma lépp lu ñuy tuddee géem sama tagg wu rafet yi nag moom rek moo ko waral moo tax ma di ko def ahmadu dana sant rabbi sama borom alal kitaabi ci alquran ci laa koy sant ba tey wa nabi ak ñu solo ko di yonent bi wa xayrul xawli te ngën gi wax mooy ini man sëriñ Tuubaa Ahmadu mooy Ahmad loolu mooy maa ngi sant yàlla rek waxoon naa ko ci liñ rab ba ñuy tàmbali xasida gi ndax dafay daaneel xasida gi te ñaareel lam tàmbali xasida rek lool lay daanee moo tax ma ne danaa sant sama borom ci alquran laa koy jaaree di ko sant ak yonent bi sallallahu alayhi te ngën gi wax mooy man daal maay Ahmadu sama tur mooy Ahmad fekk lam ci nam rek mooy ngën gi wax daal mooy man sëriñ Tuubaa maa ngi sant yàlla dégg nga ndax xasida lépp da ko jumali sant yàlla musaliyan mbir moom mooy aji julli ala suróori saaliki ci kaw ka nga xamee ne mooy mbégum aji soobu ji jëm ci yàlla xayri ibadillahi mooy ngën gi jaami yàlla yi xayri maliki yi ka nga xam ne mooy ngën gi aji moom mu ne maa ngi julli nag ci yonent bi nga xam ne ah képp ku nekk saalik rek mooy sa mbégte ku soobu ci yoonu yàlla di jaamu yàlla nekk saalik rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sa mbégte kooku nag tabarakallahu ah mooy gën gi jaami yàlla yëpp jaami yàlla yëpp boo doon laajte ku ci gën dañ naan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye itam lu waay mën a am rek tabaarakallahu rasulullahi lam am buñ ko natoon ak la nga am ci suuf ay tànkam lay ne. kon ni mu gënee ci jam yàlla yëpp waaye képp ku moom dara itam rasulullahi moo la gën moo tax mu ne musaliyan mbir moom may aji julli ala sururi ci kaw mbégum asaaliki aji soobu ja jëm ci yàlla. xayri ibaadillaahi kooku nag may julli ci moom mooy ngën gi jaami yàlla yi xayri maaliki te mooy ngën gi aju moom ñoom ñëpp tabaarakallaa lu waay moom rek bal ci darajay rasulullaahi ci nga ko jëlee ak loo mën a yor rek te jaami yàlla yëpp moo ci féete ko moo ci gën foofu na nga bàyyi ci xel mooy doo jàng xayra kon day mel ni yàlla ngay wax mais danga naan xayri maaliki ok musali musaliman mbir moom mooy aji sëlmal musaliman mbir moom mooy aji sëlmal alayhi ci yonent bi fardan yàlla muy aji wéet ja nga xamee ne onrifa xamlees na ko fii ali ci biir ñoñam ña al mustakmiliina ñi daway mat sëkk asurfa ñi daway tedd ali yàlla nekk ci yonent bi taslima jamilin salaatu wasalaamu yàlla muy aji rafet ji nga xamee ne sawara ko melal na yonent bi ci melokaane bi gën a rafet fii sax bi ci biir ay saabaam yépp na ñëw ba ci ñoom al muntaqabiina ña ñu tànn alxirata ñu nekk ay tànneef mu ne nag maa ngi dagaan ak sëlmal gu tukkee ci yàlla muy fardan yàlla mooy ku yàlla moom nga xam ne mooy ki xamle yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ay waa këram yàlla mooy xamle yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kan ba ñëpp jox ko xorma waa këram ña nga xamee ne ñoom ñëpp ñu mat lañ nekk ay surfa ñu ted nit ñu baax ñu tedd tedd ba tey yàlla yàlla sotti ci kaw yonent bi salaat wa salaam moom moom yàlla muy aji rafet ji nga xamee ne biit saxaaba yi lu ñuy bëri bëri ka ca gën a rafet bind ka ca gën a nekk tànneef mooy yonent bi moo melal yonent bi sallallahu alayhi moom yàlla ci biir ay saxaabaam ci melokaanu wi gën a rafet saxaaba yooyu nga xam ne nag yàlla moo leen tànnal boppam waaye ñu tukkee ci ay tànneef waxoon naa la gannaaw ba yonent yi jàllee yonent bi jàll ñoom ay tànneef leen ci biir nit ñu baax ñëpp moo tax sëriñ bi tagg ko julli ci waa këram ak saxaabaam yëpp mu ne fii alil mustakmilin waxoon naa la waa këram rek a lañ ci namm mu ne bii fii saxabil muntaxabin al xiira mooy ñi nga xam ne gëmoon nañ ko ba noppi nag ta faatu ca gëm ga tabaarakallaahu ñooñu la tuddee ay saabam te ñu fekkoon jamonoom. moo tax mu ne musaliman mbir moom muy aji sëlmal alayhi ci moom. daan aji wéet ja nga xamee ne orifa ku xamlees na ko fi ali ci bit ñoñ ña. al mustakmiliina ñoñ ña da way mat. asurafa ña da way tedd. ali yàlla nekk ci yonent bi ba tey. taslima jamilin salaatu wasalaamu aji rafet ji. sawara koog melal na ko ci melokaan wu rafet. fii sax bii ci bit ay sahabaam yépp. al muntaqibiina ñade ñuñ tànn te mooy saaba yi alxira te nekk ay tànneef mu ne subhaana rabbika tudd na ma sell buur bi rabbil izzati yàlla muy borom tedd nga amaa yisifoon wala lépp luñ koy melal ci ay doom ak yu ko niru wasalaamun ja alal mursalin yàlla nekk ci mboolem ñi ñu yónni ña wala am du melu sax dàkk tarafet li lay aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin moom muy borom bi def yi ne maa ngi tudd sell ak sama borom yàlla moomu nga xam ne mooy borom tedd nga maa ngi koy dàqal lépp loo xam ne mustahil la ci moom jàmm daal yàlla nekk ci yonent yëpp melo sax dàkk te rafet aji sax la ñeel yàlla muy borom bi defi kon xasida googu nga xam ne moom lañ tàmbali woon sànq mel na ne ay baytam foofu la yem tabaarakallaaw lii nag xasida yi ku muy yitteel dëgg dëgg dëgg mooy faaw nga dellu ci téere bu mel ni alfiyatu ibnu malik wala ci yeneen téere yi jàngal wàllu naxu bokkut ak yeneen xasida yi nekk ci biir waaye bii moom dafa am lu muy jàngale waaye lépp daal alaa kulli da ko jeexal ci sant kon gis nga ne saxaaba kenn ku nekk tàgg na la kenn ku nekk indi na la ñaar yoon sànq bi may déglu euh, arrêtissement bi maa ngi dégg wax ak kasa saw ju fataatee silon la xam nga silon la googu ma tudd léeg-léeg koy jaawlante Seydina Aliou léeg may baral kàddu ngir bëgg a gaaw mën naa war a tudd ku mel ni euh, Ousmane far tudd Aliou waaye booy xool sax bi ma ko tuddee euh, ca sansa tuddaat naa kon loolu day mel ni kàddu guy bar la léeg-léeg nga bëggoon wax ku mel ni Ousmane su ko defee tudd Aliou ngir silon ndax xoolaa moom baata moolaa soo ko tuddee sa xel sa dafay daj àll moo tax bi mu ne waa sa saw ju fataay tey silon la ma ne kooku nag Seydina Aliou la ci la ci sëriñ bi jublu fekk Seydina Ousmane la booy xool sax waxaat naa ko ci biir gi dégg nga kon mel na ni ñoom ñëpp tagg na leen fi tagg woo xam ne daal tagg wu la léegi nag mu wax nag xasida gi ni ko yàlla bindee ci laxul moom foos def ko ko waaye moom mi ko taalif li ko ci yàlla defal kon ñi déglu ko ci tarjumaan ji kataba na allahu yàlla tabaraka moom mi nga xam ne ku barkeel la wa taala te kawe ne annaha taynil qasidatayni naka yi ñaari qasida wa saqiqatuhuma ak seen ñaari mbokk ya xawa fataa ragal loo nañ iblisa iblis bi max naa tiital loo nañ iblis mit naa si maa ci aji wayam ji wa ayasataahu naagu loo nañ ko ñoom ñaar minhu ci aji wayam abadan faw wa ayasataahu naagu loo nañ ko minhu ci moom abadan faw wallaahu yàlla wakiilun aji seede la alama nuqulu ci lii ñu wax lam yabqa desut mukk ala katibi ci kaw aji bind xaasil huruf yi xaraf say un dara desut ko min bi naf ci ci ay bu bakkan walaahu yàlla wakiilu aji seede la alama naqulu ci lii ñu wax. mu ne yàlla mi xam ne ku barkeela te kawe mo bind ne ñaari xasiida yi dégg nga ak seen ñaari mbokk ya mooy xasiid yii ñu romb rek moom la ci namm. lu mel ne ala sabili misaal am na xasiid gu ñu romb ñu tudde aw siix niya rabbi sukkuran ya ami am na beneen xasida goo xam ne ba romb nañ ko mu tuddee ko alhamdulilahi la si xaddala nii bii ali wa bii ansalani ak xasida yi nga ne dafa jem ci wàllu tawsul te ñu romboon ko sànq mu mit yooyu la ci namu moo tax mu ne sunu borom ci boppam bind na ci lahul manfoos moom mi nga xam ne ku barkee la te kawe ne ñaari xasida yi ak seen ñaari mbokk ya ya nekk seen gannaaw mu ne Iblis ci boppam man mi ko wéy dee Iblis da caa tiit ci ñaari xasida yi waaye yàlla daf ma caa ba mu mucc ci iblis maanaam dafa naagule iblis ci man mi wéy ñaari xasida yi faw te yàlla lii ma wax seede na ko te itam man mi bind xaraf yi amul benn aybu bakkan bu des ci man lépp yàlla far na ko ci man ci bind gi ma bind xasida yi rek te yàlla lii ma wax seede na ko kon tabaarakallaa gis nga ko mu dalaat geneen xasida na bismillahi soos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur ba di aji xéewalaa kon ci àdduna arahimi buur ba di aji yërëm ku ko soob ci alaxira wasala yàlla na julli allahu yàlla ala ala ci kaw sunu sang bi muhammadin turam di muhammad wa ala alihi ak ñoñña wasama bi ak saabaam yépp wasalamu tamu dolli tasliman ak dolli kóolu kama xaala koom num doxee bay ni sama diggante wa bay na asiya a ak diggante ay yëf samaaniyatin yoo xamee ne juróom-ñett lañ yoo xamee ne baaxaa jaayoon naa ko ko mu wëli wastaraha te jënd na leen ñi nii jëlee ko ci man wa fata maa ngi koy ñaan ba dana hubbil lii ñeel ma abwaabal jannati buntu aljana ya maa ngi koy ñaan ba tey bi xay loolati ci ak doxam bay ni sama diggante bi xay loolati ci ak digaleem bay ni sama diggante wa bay na tilka samaaniyati ak diggante yooyu la juróom-ñett bilaa ixlaaqiha ci lurut ak tëjam na ma ko tijjil faw bilaa ixlaaqiha ci lurut ak xombam an nii muy wëlis ma abadan faw mu ne maa ngi tàmbalee sama wax ji ci turu yàlla yàlla mi xéewalaa koon bépp mbindeef ci àdduna waaye tey aji yërëm ku ko soob ci àllaaxira tabaarakallaahu maa ngi dagaan ci yàlla mu julli ci yonent bi di sunu sang bi turam di Muhammad yàlla yàlla julli ci waa këram ak saabaam yëpp te dolli ko kóllite léegi nag mu sant ci tarjumaa ji moom yàlla ni mu doxee sama diggante ak diggante juróom-ñett yëf yoo xamee ne tabaarakallaahu dama ko ko jaay ba mu jëlee ko ci manta te jox na ma njëg gi loolu ma ko jaay mu nekk nag juróom-ñetti marchandise te jox na ma njëg gi maa ngi koy ñaan mu hubbil ma ci bunti aljana yëpp te juróom-ñett yooyu ma jaay ko damaa bëgg mu dox suñu diggante ba bu mu ci jotaat mais buntu aljana yooyu ma ñaan ko mu tijjil ma bu mu ko xombaat na ma ko tijjil faw te bu mu ko xombaat <laughs> wa fataha li abwaabal jannati bi haylulatihi bayni wa bayna tilka samaniyati bila ixlaaqi ani abadan yàlla na ko yàlla fayal su ko defee na xasida gi moo tàmbalee fii moo tax mu ne yan xoo dana jublu ilaa si waa saatiya daw jëm ci furut sama jëmm abada faw dégg nga faw dana jublu jëm ci feneen foo xamee ne bokkut sama jëmm lum ci nam rek mooy lem jaayanteeg yàlla. maa la nga xamee ne xaadoo womat na ko moom yàlla li si waaye mu jëm ci furut man man yàlla mi nga xam ne xob bi daa jaamos na ko. mu ne la nga xam ne yàllaa ko womat dàq ko mu jëm ci furut man loolee feneen lay jublu mais du jublu mukk sama jëmm. yàlla moom nga xam ne moom rek mooy ki ñuy jaamu te moo yeeyoo ñi di ko jaamu mais teg ko ci dëgg moo tax ma ne yan xoo dana jublu ilaa siwaa saati daw jëm ci furu sama jëmm abada faw maa la nga xamee ne xaadoo mat na ko li si waaye jëm ci furut man man yàlla mi nga xamee ne xob bi daa jaamus na ko ba yiir na xàjje ba yiir na bay nee sama diggante bay na ku lima ak diggante lépp loo xam ne yuuf di dana ma ñoddi ilaa saxaawatin jëmee ci ak texee di kan moo ko def mu ne man yàlla mi nga xam ne xam na lépp mu sunu borom moo dox sama diggante ak lépp loo xam ne mën na maa yóbbu ci texey di lu ma nar a yóbbu ci texey di rek yàlla mi nga xam ne ku xam mbir yëpp la lu feeñ ak lu nëbb lépp peeg xam-xam yëpp yàlla moo dox sama diggante lépp lu ma nar a yóbbu rek ci texey di yal na yàlla musal leen ci texey di te musul ñu ci wajaxtu jëmale na maa la nga xamee ne ixtira tànnalees na ko tabaarakallahu li xëyri mu jëm ci kurun man sarmadaa faw lëxoo ñeel ko bi sondin ci dëdd wa xafaafin ak fegu goo xamee ne xumida kook santes na ko mu ne a ba tey wala boog mu ne lépp lu ma yàlla tànnalul rek dàq naa ko mu jëm ci furut man faw loolu du jublu ma nit du ko jublu te ba ma ko dàqee mu jëm ci furut man dama ànd koog fegu ànd koog dëddu fegu boo ko déggee mooy koo xam ne lépp lu daganu rek ca moom daf cay fegu du ko def mukk dëddu nag mooy lépp loo xamee ne mbiri adduna la ak ya caaju yëpp bu la dëdd malee nga wan ko gannaaw wane ne du dara loolu mooy dëddu ak fegu ñoom ñaar dañoo dend fegu moom mooy nga fegu ci lépp loo xam ne dagunut ci yow nga fegu ca dëddu nag mooy lépp ñëw la nga wan ko gannaaw wane du dara loolu mooy dëdu moo tax nag mu ne lépp loo xam ne sunu borom tànnalul ma ko dàq naa ko mu jëm ci furut man ànd ko nag ba ma ko dàqee wan ko gannaaw ah dama dëddu ndax koo xam ne lépp dikkal na la nga wan ko gannaaw te bu la neexoon jëfandikoo ko kooku dañuy jàpp ne ko nit kooku dëdd ëdd na la ku fegu ndax soo dëddutoon ëdd na mbaa nga fegu bala lépp dikkalee te am na ci loo xam ne tabaarakalaaw ngeen ngeen yi bu ko gisoon mbaa bis bu ne bu xamoon ne mi ngi barab sangam dara dem wuti ko fa sëñ Tuubaa wan gannaaw loolu yëpp. moo tax mu ne wa jaxtu jëmale naa maxtiira lépp loo xam ne tànnaloo ma ko jëmale naa ko li xëyri mu jëm ci fudun man sarma daan faw laxoo ñeel ko laxoo ngir moom rek bi suxrin ànd koog dëddu wa afaafin ak fegu goo xam ne humi daa santees nga ko ga ma dëddu ga ma dëddu lool ak fegu ga yàlla sant na ko kon lépp rek dama ko dana ci lu ma yàlla tànnul dama ko dàq biñ ci man lépp ngir yàlla lu ma toll goog day dellu ci yàlla ngir yàlla. wa jaxtu jëmale naa maa lépp loo xam ne lam yar da gërëmoo ko lii ci man allahu yàlla ilaa maxali jëmale jëmale naa ko ca barabam ba abdan bir ma ma nekk li waahibil ilaa ñeel ka nga xamee ne mooy aji may xéewal ta mooy yàlla. mu ne lu yàlla gërëmut ci man rek danoose naa ko sànni ko fa ma ko war a sànni <laughs> ah, lépp lu yàlla gërëmut ci man sëriñ bi nee na danoose naa ko barab ba ma ko war a sànni foofu laa ko sànni ndéem yàlla gërëmut ko ci man su ko defee nag ma sol nag manto mooy sol mbubu alhamdu mooy nekk jaam suñu borom mi nga xam ne lu waaye am ci xéewalu aduna ak alaxira moo la ko may waahibil ilaa kon wajaxtu jëmale naa ma lépp loo xam ne lam yarda gërëmut ko lii ci man allahu yàlla jëmale naa ko nag ilaa mahali ca barabam ba mooy sànni naa ko rek lu yàlla gërëmut ci man rek bàyyi naa ko abdan nekk jaam nag li waaxi bi ca yàlla may aji may ilaa xiiwal yi yàlla ma xam daal ku am xiiwal moo la ko jox tabaarakallaahu ci moom laa jëm nag waaye lépp lu ma gërëmalu rek wan naa ko. ba tey mu ne dafaxtu joñ naa maa lépp loo xam ne sii xam màngees nga ko li xëyri mu jëm ci furun man li man jëm ci ka nga xamee ne sii xam màngees na loxoo jëmee ci moom bi badali la wettee loolee al muxti te moom mooy aji joxe al aman garante muy sécurité mu ne lu yàlla dàq màng ko mu jëm ci furut man joñ naa ko ma nit jëm ci ka nga xam ne ba ma màngalee la nga xam ne da koo dàq mu jëm ci furut man daf maa joxaat lu ko remplacé lii yëpp lam jaayanteeg yàlla rek lay wax bi mu yàlla juróom ya yàlla da ko jox njëg goo xam ne moo remplacé juróom-ñetti marchandise ya su ko defee nag njëg ci bopp moom la wax ne dafaxtu maa siiqa li waaye nag liman si dégg nga wala marchandise mam jaay yàlla la wax ne dafantu maa si xali xëyree liman mais njëg ga ko yàlla jox nag moo wettee nag tabarak la marchandise moo tam ne liman si xaloo bi baddalil muxtil aman dégg nga yàlla boobu mooy muxtil aman képp ko am sécurité garante moo la ko jox kon dafantu joñ naa maa lépp loo xam ne si xam mangees nga ko yow yàlla li xëyree mu jëm ci furun man dégg nga ñi ne bi nga wëccee loolu foo jëm mu ne liman jëm ca jëm ca ka nga xam ne si xam mangees na loxoo jëmee ca moom dégg nga bi baddali la wettee lee nga xam ne mooy marchandise moo ma ko jaay kookoy kan mu ne al muxti mooy aji joxe al aman garant kon li man siqaloo bi badale mooy la ko yàlla jox ci njëg mais dafantu ma siqali xare mooy marchandise ma nga xamee ne génne na ko ci boppam ba jox ko yàlla te loolu jeex na tàkk yàlla na yàlla fayal sëñ Tuubaa moo tax mu ne nag lépp loo xam ne yàlla da koo màng mu jëm ci furut man te mooy marchandise ma yàlla jël jënd ko ci moom nee na joñ naa ko mu nit bëgg soo amatu ci soxla daal ci gàttal marchandise moo joñ mooy moo amatul soxla marchandise mu yàqu rek danga koy xappi waaye li man sii xëlëxoo mooy nag damaa jëm ca dégg nga ka nga xamee ne ba tey lu wettee loolee nga xam ne moom la màng mu jëm ci furun mam moom la ma jox nee ci kookee laa jëm te kookee mooy mooy borom xéwli te mooy joxe xéwal mooy joxe sécurité ba tey mallaka nii moom loo na ma taxsimu rusulillahi may màggal yonentub yàlla bi dégg nga sala yàlla julli ci ñoom ismatan millaahi yàlla moom nga xam ne mooy ki ma musal ci lépp luy caaxaan mu ne yàlla may na ma fu ma toll di màggal yónent yëpp bu ne rasulilaay ñëpp mën nañuy dugg dégg nga ñëpp rek dañuy daal dugg ci biir yónent yi moo tax mu ne nag yàlla may na ma dafa bokk ci li nga xam ne jullit bu ne da ko war def mooy di màggal yónent yi maanaam jox leen seen xàq li nga xam ne dafa war ci ñoom nga nangul leen ko li nga xam ne dafa jomb ci ñoom nga dàqal leen ko bañ leen di tëkkale rek comme mbindeef yi kese deret mu ne maa ngi ñaan yàlla mu julli ci yonente yëpp moom mi ma musal ci lépp luy caaxaan kon man la ko ni moom loo na ma tax si mu rusulilaay màggal yonentu yàlla yi sala yàlla julli alim ci yonente yooyu yëpp moom yàlla insmatoon moom mi nga xam ne aji muccal la ma min laay ci lépp luy caaxaan man la ko ni moom loo na ma ba tey tax si mu qadiril anbiya may màggal wàccuwaayi anbiya yi mooy darajay anbiya yi moom loo na ma ajran yool man bu mag xaadoo womat na ko lii jëmee ci man rabbi sama borom mu ne ni ma yàlla mayee may màggal yónent yëpp noonu la ma yàlla mayee may màggal anbiya yi anbiya yi boo ko déggee mooy koo xam ne solo nañ ko ba noppi te yónnuñ ko mais ruslu nag boo ko déggee mooy koo xamee ne moom dañ ko solo ba noppi yónni ko kon ruslu boo gis rek nekk na nabiyu maanaam nabiyu dafa am lu ñuy wax nabiyul mursal mursal boo gis rek nekk na nabiyu mais nekku ne nag tabaarakallaahu nabi boo gis rek nekk na mursal moo tax ma ne suñu borom may na ma na may màggale yonent yi ma di ko màggale anbiya yi ña yàlla solo te yónnuut leen waaye borom woo mat na jëmee ci man ma muy sama borom yool boo xam ne bu rëy bu kenn mëntu nat moo tax ma ne malaka ni moom loolu ma tansimu qadril anbiya may màggal wàcc waayu anbiya yi mooy darje ji am. xaadoo wo mat na lii jëmee ci man rabbiya sama borom ajran yool asiman bu rëy malaka ni ba tey may màggal. sax bi man saxaabay ka nga xamee ne baddaa feeñ na kaw nii nekk gi ma nekk xadiimoo nekk ku koy liggéeyal intilaaxan ci lu boyu dégg nga intilaaxan ci ak boy ubbi daa goo xam ne saxalees na ko mu ne ba tey sunu borom moom loolu mooy màggal mboolem saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi nga xam ne doon gi ma doon xadiimaam nekk ku koy liggéeyal mu ne loolu intilaaxan la intilaaxan mooy loo xam ne dana fàng maanaam tënkuñ ko dafa dafa tekkeeku te nee na loolu dafay sax faw kon malaka ni na ma tax may màggal zan bi man saxaabay ka nga xamee ne ba leer na nañ mooy feeñ na kaw ni nekk gi ma nekk xadima di ko liggéeyal intilaaxan ci lu boy ubbi daa goo xam ne saxales na ko kon xasida goog jeex na da ci doon sant yàlla wa ama bi nixmat rabbika faari waaye ñetti béer yooyu mu taglante ku ne war na ko bàyyi xel màggal yonent yi ak màggal anbiya ak màggal saxaaba yi ñii lañ war a gën a màggal ci nit ñi kat moo tax mu teglee ko nii dégg nga moo tax mu tegle ko nii saxaaba yi bu yonent yi jàllee ak anbiyaaw yi ñoo ci féete kaw de bàyyi leen ci xel waay sayida seede ne allahu yàlla ne annahu naka luy mbir tey mbir laa ilaa amut benn buur ba yeyoo jaamu jaamu gu jur njëriñ ñàkk gaa jaamu gu jur lor ilaa huwa ndere moom wal malaayikatu ak malaayika yi wa ulul xelmi ak borom xam yi nga xameen xaayiman aji taxawee leen seen xam-xam bil xëtt ci atti bu mandu ñoom ñëpp seede nañ ne laa ilaa amut benn buur ba yeyoo jaamu jaam gu jur njëriñ ñàkk jaam gu di jur lor illaa huwa ndere moom yàlla alxasiisu mooy aji not ci kàttanam alxakimu mooy aji xereñ ci ay njëfteefam inna diina naka diina ci dëgg-dëgg xendalaay fa yàlla al islaamu mooy islam de mu ne ba tey muy indi ayib alquran tabaarakallaahu ay joo xam ne ju bëri nga ni la nga xam ne képp kuy nelaw wax ko guddi gi na la bindal yool ba kere ngay yeew muy sayyidallahu ana laa ilaaha illaa wal malaa'ikatu ulul ilmi qaaiman bil laa ilaaha illaa inna diina inda llaahi al islaam moo tax nag mu ne sunu borom ci boppam moo seede ne moom rek mooy yàlla amul benn yàlla ju fi nekk di yeyoo jaamu te ku ci dëgg ku dul moom kon jaamu moom ci jaamu gu sax yàlla rek ba noppi teg ku ci dëgg tabaarakallahu yàlla rek lañ ko def. niki noonu malaaka yi seet nañ ne yàlla rek moo bindoo noonu moom rek lañ war a jaamu teg ku ci dëgg borom xam-xam yi ñoom it ñi nga xam ne dañoo teg seen xam-xam ci màndu ñoom it dañoo seede ne yàlla rek mooy buur bu ñu war a jaamu mooy aji not ci kàttanam mooy aji xereñ ji daal ne ina diine indalaay islam loolu ba tey ay alquran la mooy lislaam moom benn rek lu muy bari bëri benn la ci yàlla nangu te mooy gim jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëñ Tuubaa ne damaa ñëw ngir yeesal ko dégg nga yàlla na ko yàlla fayal saraxa yoonal na yoonal boo ko déggee mooy tàmbali rek saraxa yoonal na kaatibu aji bind xaasiilu xuruuf yi xaraf bilaa tawaqufin ci lurun muy taxawlu wala tasalsulin wala rëng-rëng di ci am wala afatin wala ay gàkk-gàkk wala kadirin wala ay nax-nax fii di nekk ci biiram wala bayno wala muy nekk digganteem moom ki yoonal lii wa bayna ahadin ak diggante kenn fii sa in ci mbir yi maa ak mbir mu man di doon fow faw walaahu yàlla wakiilun aji seedal na naqulu ci lii mu wax léeg-léeg da koy dégg mën a yoonal naan nangam fekk loolu mënoo koo xam dégg nga mënoo wax ne tabax bii la tàmbali mënoo wax ne pour digganteeg borom rek lay feddali yeesal gi mu yeesal sunu si bi sallallahu alayhi wasallam la fa yonent yi nekkee woon tabaarakal waaye nee na yoonal ndaaj daal ci gàttal man mi bind xaraf yi am na lu ma tàmbali loo xam ne du ma taxaw mukk te rëng-rëngi fitna du ma ci fekk musiba du ma ci bett yàlla duma ci teg benn gàllankoor benn gàkk-gàkk itam du ci tàbbi benn nëx du ci nekk lii ma tàmbali te sama diggante kenn itam benn jafe du ci nekk ak ci mbir yi ak mbir mu mën a door ak yàlla musal na ma ci xeeti jafe-jafe yëpp te lii ma wax kat yàlla seet na ko kon saraxa tàmbali na kaatibu aji bind xaasil huruf yi xaraf bilaa tawaqufin ci lu muy taxaw lam tàmbali du taxaw de ba faw lay nekk wala tasal sulin te benn rëngër ngi du ci am wala afati wala gak gàkk wala këtërin wala ay nëx-nëx fii di nekk ci biir biir loolee mu tàmbali lam tàmbali daal benn rëngër ngi du ci am du ca taxaw benn gàkk-gàkk du ci dugg moom ki tàmbali loole mu tàmbali ba benn ak ak diggante kenn fii sa in ci mbiri ak maa mbir mu mën di doon abadan faw lam tàmbali daal amul kenn kum ci xuloo mbaa mu ci xeex ak benn jafe-jafe du am diggante kenn te wallaahu yàlla wakiilun aji seede la alaa maa naqulu ci lii ma wax. xaadati woo mat na ilee jëmee ci man almunaa sama mbébét al aqdaaru dogal yi nga xam ne mooy dogal yu neex yi. watantahi dana jublu al akdaar yu dogal yu naqar yi muy nëx nëx yi li si waaye jëm ci furut man mu ne sama mbibét li ma koy jox waxtu ne ma di ko am mooy dogal yi yàlla di wàcc ci man dogol yu neex rek la al akdaaru mooy dogal yu neex yi yàlla di wàcc ci moom waxoon naa la bi dafa toll jamono ba sunu borom dootul wàcc ci benn dogal bu koy indil gàllankoor mbaa jafe-jafe wala nëx nëx mbaa fitna mbaa coono lépp yàlla tegal na ko mais al akdaar nag mooy dogal yu nëx yi nit ki xam ngeen ne ku xam ngeen ne ëtt kërum nëx la sa band mi rek bu yàggee mën naa nëx waxuma laa nag yow mi nga xam ne heure bu yaa ngi dund ay jafe-jafe ak i métit moo tax nag mu ne xaadati womat na ilee jëmee ci man almuna sama mbibét lu ko mat mu ne al aqdaaru dogalu yàlla yu neex yi dogalu yàlla yu neex yi daal lu ma bëgg rek ñoo ma koy indil watantahi dana jublu al aqdaaru nëx-nëx yi mooy dogal yu naqari li si waaye jëm ci furut man lépp luy dogal bu naqar rek suñu borom musal na ma